secrétaire administratif. Et il allait dire à qui tout le monde qu'il a été euh, euh, euh, élu secrétaire administratif par Dakar. Et quand il dit par Dakar, euh, c'est, il, veut dire par Ousmane Tanordien ou Mambouna Massa. Je parle sous le contrôle de, des gens ici. Vous savez comment ça s'est passé Je pense que Papa Moudou Ndiaye doit être là. il sera là bientôt. Le poste de secrétaire administratif nous revenait de droit au niveau de l'union communale. de voilà l'union l'union communale de Thiès sa secrétaire général administratif secrétaire administratif de l'union régionale ça revenait de droit à l'union communale et dans le cadre de l'union communale ça revenait à Pape Amadou Ndiaye le responsable de la coordination euh, quatre 4A c'est moi qui ai demandé à Pape Amadou Ndiaye euh, Pape Amadou Ndiaye oui pour apaiser un peu les esprits parce que je vous ai dit Pape Sall était responsable des jeunes. Dans le Parti socialiste, c'est un peu le problème de Barthélemy, hein, dans le Parti socialiste, quand vous êtes responsable des jeunes, vous, êtes dans la préséance. C'est-à-dire que partout où il y a le bureau de l'union régionale qui se réunit, ou le comité central ou autre, vous êtes sur le podium. Autrement dit, vous faites partie tout, le temps, en tout cas des responsables, là où se trouvent les responsables. C'est un problème de préséance. Mais quand vous perdez cette qualité, vous perdez ça. Et c'est justement le problème de Pape Sall il a perdu ça. Il est devenu euh, un responsable, euh, euh, un militant ordinaire. Et ça, c'est un peu difficile quand même à gérer. Et c'est pourquoi j'avais proposé à Pape Amadou de, de laisser son propre poste de secrétaire administratif, New York au Pape Sall, pour le calmer un peu, pour l'apaiser, pour l'encourager. Et vous voyez l'utilisation qu'il en a faite. Tout de suite, il est allé dire aux militants, Mankat, dema dakaar ñoo ma woon ne ma def nañu la secrétaire administratif je n'ai jamais reçu depuis que je suis secrétaire général ici communal je n'ai jamais reçu une recommandation d'Ousmane Tanor Dieng je n'ai jamais reçu une recommandation de Mame Bouna Massal pour qui que ce soit au contraire après que l'union ait travaillé man maay jël sama téléphone informé leen te li ma leen informé ca lool la ñuy ànd c'est pour vous donner un peu un aperçu de l'individu même boo ko defalee lu baax mu traversé ko jël ko présenté ko nen et ça c'est important vraiment que les gens comprennent qu'il est devenu secrétaire administratif non pas par la grâce d'Ousmane Tanor Dieng ou de Mamouna Sall mais parce que man u Keita secrétaire général de l'Union j'ai demandé à Pape Amadou Ndiaye qui en était le titulaire de me céder le pour ma jox ko ko moom pour le calmer Ousseynou Keita secrétaire général de l'Union communale tànneefu dafay wax lu ko neex rek li mu wax dara amu ci mu wax loo Souleymane Ndiaye Brin Souleymane Ndiaye Brin ngi fii ko demewul noonu kenn musut a jox parti socialiste poste parti socialiste jël am mbaax gu toll nii ñu jox ko poste mu jël poste bu nekk soxlaw ma ko am leen jël leen su kooku ay fen yi nen la amul fen musut a am un deuxièmement moom Pape Amadou Sall il faut que mu xam ni dafa war a bàyyi nit ñi ñu liggéey bu fekkee moom liggéeyul na bàyyi nit ñu liggéey doon na xëccoo coordination ñàkk na ko def na recours l'instance habilitée à a vider les recours la débouté affaire bi jeex na tàkk na xaar ba beneen yoon su mu ne présenté waat ñu fal ko ñu fal ko mais mënul nekk responsable de coordination bëgg tax euh, de section bëgg a taxaw ci bopp responsable de coordination yi mënut a nekk ça c'est un deuxièmement euh, li xew foofu ci réunion boobu nee na Ousseynou Keita dafa dem euh, waxu ko li Thomas Ciss dama bëgg a yëg yëgal ko moom bu ko xamulee ne Ousseynou Keita dans le cadre de l'organisation du parti socialiste mooy responsable union communale Thomas mooy responsable département mais dans le cadre de benn Bokk Yaakaar fii ci Thiès al euh, Augustin mooy coordonnateur Ousseynou Kayta mooy vice coordonnateur ba ci fii sama zone Siré Dia mooy coordonateur maay vice coordonnateur c'est à ce titre là que léeg-léeg ñu woo ma duñu woo Ly Thomas mais que dans tous les cas maag Ly Thomas réeroowuñu benn yoon on se parle même après cette affaire on s'est appelé on a on a parlé on a on a discuté de de l'affaire de de donc je pense que sooy suyu nit si sooy wax da ngay wax loo xam ni yenu na maanaa wala loo xam ni dëgg la donc en ce qui concerne le haut conseil yooyu mu ci wax dara amu ci musuma laaj man ñu bi ñoom xam nañu ma sax parce que am na benn haut responsable du parti social ba ma ko waxee nee na nee nañ de man def nee na sax damaa xam nañ nañ bind sama tur mu ne kooku xamula un respons un haut responsable du parti socialiste mu ne kooku bu la xamoon yow du la wax loolu waaw alors donc je pense que Pape Sall dafa am problème bu mu bëgg a régler waaw problème bi nag na ko réglé te bañu waaw nañu bàyyi ñun ñu liggéey suñu liggéey moom li nga xam ne moom la war kii mu li nga xam ne moom la war a def mu def ko wala boog te moom mu na xam boppam parce que nag fàttewuñu conseil régional li fi xewoon avec Jean Baptiste fàttewuñu ko même si par humilité par par pudeur on ne veut pas en parler xam nañu la fa xewoon xam nañu tam li xew ci entre les deux tours entre moom ak waa PDS xam nañu ko bu baax a baax ak yeneen ki yeneen par conséquent na bàyyi nit ñi ñu liggéey na bàyyi nit ñi ñu liggéey loolu mooy li nga xam ni moom laa doon wax en tout cas j'insiste sur le fait que parti socialiste kenn musu koo jox poste mu delloo ko wala mu maye ko parce que ci mbaaxam wala leen beneen bi mooy lan mais parti yi boo jëlee département bi parti socialiste mi ngi ci gannaaw AFP bu neexee bu naqaree yëpp mooy dëgg loolu moo am parce que départ euh, département bi AFP am na ñaari communes yu mu contrôlé Ngoundiane ak euh, Noto parti socialiste contrôlé wul benn commune même bu dee au niveau de l'union communal ñoo leen raw au niveau des du département ñoo ñu raw donc arimétiquement su ñu nee le parti qui est au pouvoir APR dina am ñaari poste parti ba ca topp am benn poste mënut a nekk parti socialiste c'est pas possible te nag am na loo xam ni sax suñu biir la parce que yii booy tontu sax da nga wax loo xam ni sax waroo ko woon wax parce que bu leen fàtte ni ñun ñoo fi initier la majorité présidentielle. dugal fi ay parti terewul nag ñu jox leen suñu suñu suñu parti wala ñu jox leen réew mi ñu jeere ko alors donc taxul ñu jox leen réew mi ñu gérer ko taxul ñu jox leen suñu parti donc xam nañu nu majorité présidentielle di doxe donc loolu mooy li nga xamante ni moom laa buggoon a tontu maintenant pour li ci des responsable coordination sax ku ci nekk mën naa tontul boppam li nga xam ne moo am Thiès daal nit ñi def nañu liggéey bi ñu war a def déposé moom nag camarade la dem na Dakar boole nit ñi ne diw ak kat. dégg ci kii bi sax dégg naa mu naan am na benn coordination boo xam ni cinq ñoo fa nekkoon 10 ñoo d' accord ñu des d' accord dama bëgg a xamal ni moom bu demee Dakar def yooyu coordination boobu nga xam ni moom lay wax coordination boobu dañoo repre man maa leen demandé ñu reprendre seen seen euh, liggéey ba ñu reprendre seen liggéey maa nga foon def nañ ko ci net bi mu ngi ci net bi les choses sont kii moo doon euh, le superviseur. les choses sont passées correctement amatul nag lu mu wax waaw parce que dafa dem xam nga moom li ko kii dafa dem dakaar wax ba pare ñu wax jooju yàqu léegi nag muy ëlbatiku nag di wax wax yi di attaqué mais li mu am solo ba des mooy au niveau de Thiès l'ensemble des coordinations li nga xam ne moom la ñu waroon liggéey ci questionnaire yi liggéey nañu ko jébbal nañu ko Cheikh Sey Cheikh Sey nga xam ne mooy le secrétaire permanent Cheikh Seye boppam man am na liggéey wax nee na moom dafa rencontré Cheikh gis naa ko mu wax ko ci bi mais man gis naa Cheikh gis naa Cheikh Seye <laughs> gis na xam nga nee gis na Ousmane Tanor Dieng mais Ousmane Tanor Dieng euh, bu nekk fii bépp militant bu nekk fii boo gis Ousmane Tanor Dieng gis ko gis Ousmane Tanor Dieng c'est pas un problème c'est pas parce que gis na Ousmane Tanor non ce qu'il veut il du trafic d'influence yaakaar ne bu ne gis naa Ousmane Tanor Dieng ça veut dire que moom Ousmane Tanor Dieng moom la àndal Ousmane Tanor Dieng àndul ak moom on connaît très bien Ousmane Tanor Dieng on connaît très bien Bounaba c'est des administratifs yoo xam ne du ñu dugg ci yenn yi waaw donc par conséquent na bàyyi trafic d'influence bi te liggéey parce que il na peut impressionner personne waaw mënul impressionner kenn te mënul tere nit ñu liggéey sul veut une coordination na xaar ba renouvellement yi ñëw su renouvellement yi ñëwee mu dem bu ñu ko falee mu xam ne fal nañ ko bu ñu ko falul mu xam ne falul ñu ko et mu jeex tak je crois que c'est mieux que yi mu yi muy def li muy def nag xam nañu lu tax mu koy def au conseil bii ñu war a tabaxal taxawal mu yaakaar ne Tanor am na ci lu mu ci mën a joxe loolu lay yëngut pour am ci mais moom mënu ci am parce que ñu ko gën a responsable ñoo nekk fii Thiès voilà. de l'union communal man maa présider réunion wu coordination 1A. keroog j'ai d'ailleurs demande à Alexandre ak Doudou Niania ñu jël kii bi filmer ko dugal ko dans le net pour deux raisons parce que ki ñu amal affaire xam nañ ko depuis renouvellement yi à long jour tegul tànkam fii ci parti bi benn réunion ñëw fi kii se réclame du parti sociale réunion parti social bu amee da ngay ñëw te ñu naan responsable de section la je crois que l'affaire c'est pas à Dakar l'affaire c'est ici Si on veut travailler pour le parti, c'est la base, ce n'est pas le sommet. Il faut qu'on arrête de divertir les gens. Ousmane Tanor Dieng c'est notre responsable. Mais nag Thiès gii responsable bi fi nekk c'est Ousseynou Keita. Et nous nous ñun ñoo ko fal les sept secrétaires généraux de cordination ñun ñoo ko fal mu ñu def ko responsable de union l'union communale. distinguo bi ñuy def nag entre l'union communale et le département de Thiès nous l'avons posé nous avons cette coordination s'il par exemple de faire un vote au niveau de l'union départementale lui il sait que cette coordination sur trois ah kon on le remporterait largement mais c'est pas ça le problème qui se pose au parti socialiste lui Thomas ak ñun daa pas plus forte avant-hier rek la lui Thomas ñëw fii représenté Ousseynou dans le cadre d'un décès d'un de nos camarades donc il faut qu'il cesse raison garder le parti socialiste c'est pas l'apanage de qui que ce soit nous ce que parce que Pape Amadou l'a fait avec le PDS. Il est parti voir Ablaye Wade. Quand élection municipale, il est allé avec Mamoudou Dieng un mouvement. C'est pour cela qu'il est adjoint au maire aujourd'hui. On est resté là au parti. Est-ce compris Il est conseiller. aujourd'hui parce que c'est dans la liste de Mamoudou Dieng. N'est-ce pas Entre, Même le référendum, il est allé voter pour, pour, pour, pour, pour le non. Parce qu'il ne jamais présenté ici pour l oui. Il faut que ça Aujourd'hui, on parle de quoi On parle de quelqu'un personne ne le voit, personne ne le verrait. Et de toute façon, coordination, parce que nous avons coordination, c'est Alexandre et, et, et Ce sont eux qui travaillent pour la coordination, nous les appelés pour que la coordination C'est comme ça qu'on travaille, nous. Et puis on est en équipe. Fille, on est soudés, on se, on se bagarre pour que le Parti social quand même submerge au niveau le reste, ay trafic d'influence ay par exemple je m'approche de diw je m'approche de diw pour quoi qu'il en soit ça on la même Ousmane Tanor Dieng ko bëggoon ñun duñ ko d'accord il faut que ça soit conséquent ñun on est des militants te ci la ñuy dee ci la ñuy dund ci la ñuy dee je Jean-Pierre Tine du ma ma kii ak ak Sam on a milité ici boobu yow yaa ngi fii bi ngay doog ñëw fii on était ensemble j'étais le secrétaire général des jeunes sociales total mal remplacé mais vous savez comment il n'a jamais réuni son son wax lu ko neex mosu ko réunir coordination yi yëpp man de personnellement man kii def déclaration fii keroog du man c'est une femme qui seulement ils n'ont venir on a gagné notre bureau de il n'a jamais gagné kër maam El Hadj boobu mooy wax loolu malgré qu'on respecte Mounirou et tout ñu ngi koy ñaanal mu wér te yàgg fi mais moom position bi muy jël nii du cërëm te s'il continue comme ça maam bu naa ma sàll ci jëm boppam man xam naa ne il est gêné sax par rapport à cette parce que lui quand lu à ses dépens s'il croit que parti socialiste le parti il verra lu may wax maa ngi leen di gërëm di